Après les accords trouvés avec les enseignants, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif d'accompagnement pour une meilleure gestion de l'année scolaire bouleversée par les grèves. Il s'agit de la mise en œuvre effective des programmes scolaires réajustés et le réaménagement du calendrier des examens scolaires. Ainsi, l'examen du CFE est arrêté les 22 et 23 juin 2022, celui du BFM à partir du 21 juillet 2022. S'agissant du baccalauréat, la date reste à préciser. Ces dispositions seront accompagnées par le déploiement des ressources numériques à travers la plateforme Promet éducation.sn, l'organisation de séances de renforcement pédagogique et de remédiation, la systématisation de l'encadrement des élèves en classe d'examen, la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation. Autre point essentiel de la lettre circulaire émanant du ministère de l'Éducation nationale, la tenue des compositions du premier semestre du 6 au 13 avril 2022 pour le moyen secondaire, la tenue des compositions du deuxième trimestre à partir du 24 mars 2022 pour l'élémentaire et enfin la réduction des congés de fin deuxième trimestre. Les classes vacaront du vendredi 1er avril à 18h au mardi 5 avril 2022 à 8 heures. La naissance de Cheikh Ibrahim Niass est célébrée aujourd'hui au Nigeria, plus précisément dans les États de Zamfara et de Kano. Et selon les officiels, plus de 7 millions de disciples prennent part au Gamou de Kano, présidé par Mohamedou Khalifa Niass, et le même nombre ou plus est aussi présent au Gamou de Zamfara. Le Gamou de Zamfara est ainsi présidé par le Khalif général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Nias. Beaucoup d'officiels ont également rallié les lieux, dont le représentant du Khalif général de Baye au Nigeria, l'ex-émir de Kano Mohamed Sanusi II. Après sa sortie sur l'entretien de Agissar accordé aux médias internationaux, le journaliste de Walfadjiri, Pape Ndiaye, a reçu des menaces de mort. En effet, le présentateur de l'émission Balance, qui était l'invité de Petit Déj, a soutenu que pour avoir fait cette sortie, Agissar pourrait être poursuivi pour violation du secret de l'instruction et même conduite en prison. Il a également fait savoir que dans ce dossier, il sera difficile de condamner Ousmane Sonko. Selon lui, soit le leader du PASSEF obtient un non soit une contre-expertise avec un autre certificat médical de Aguessar démontre sa culpabilité. D'après Seneweb, le journaliste a reçu ce vendredi 4 mars 2022 28 messages vocaux et 13 appels nationaux et internationaux via WhatsApp. En Afrique, des Centrafricains ont tenu à manifester leur soutien à l'endroit de la Russie ce samedi à Bangui dans son offensive contre l'Ukraine. Les manifestants ont agité des drapeaux russes et centrafricains en plein cœur de la capitale près de l'université. En effet, face à une rébellion menaçante il y a plus d'un an, Le président Touadéra avait appelé Moscou à la rescousse de son armée démunie et mal entraînée et des centaines de paramilitaires russes étaient venus s'ajouter à de nombreux autres présents depuis trois ans repoussant les groupes armés. En sport, Clarence Seedorf, ancien footballeur international néerlandais, s'est converti à l'islam ce vendredi 4 mars à Dubaï. Merci pour tous les gentils messages envoyés pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et ravie de rejoindre tous les frères et sœurs du monde entier, en particulier mon adorable Sophia qui m'a appris plus en profondeur le sens de l'islam. Je n'ai pas changé de nom et je continuerai à porter le nom que m'ont donné mes parents, Clarence Sedor. J'envoie tout mon amour à tout le monde, a écrit l'ancien légende du Milan AC.